من وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وهذا لفظ البخاري مكي حديث ببتي كيكو سولو عبد الله بن عمر رضي الله عنه mu nekkoon saxaaba boo xam ne bu mokkal bu toppoon yonent bu bu feesoon la ci roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mokk ci ay ci topp ay ndigalam moo solo xadis bi nga xam ne moo jàll tam nga xam ne mooy xadisu 574 ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la mu ko dénkoon ne ko nekkal ci àdduna mel ne ab doxandéem wala koo xam ne da ngay romb rek ci béréb ba tax mu daan wax naan boo xëyee bul xaar boo gontee bul xaar ne danga xëy waaye boo xëyee itam bul xaar ne danga gont xadis boobu mu ngi ci Buxaari loolu nga xam ne moom la wax ne boo gontee bul xaar suba boo xëyee tam bul xaar ne ngoon dana la fekk ci àdduna lam ca tegoon mooy waxud min sixatika li maradik boo nekkee ci waxtu woo xam ne yaa ngi ci wér-gu-yaram na nga ci góorgóorlu ngir bàyyi xel waxtu yi nga xam ne ci ngay woppe ndax nit bu woppee duutu amati cawarte yaram wi day fasu xel mee tam euh, teewlu gi day daal des bay na ma boo nekkee ci sa wér-gu-yaram nag mën ngaa def lu bari ci ay xeeti jaamu yàlla ci yaram boo xam ne mu sawar lay doon ak xel moo xam ne mu teew lay doon moo tax mu ne ko na nga jël ci sa wér gi yaram li nga man ngir boo feebaree loola suñu borom subhanahu wa taala continue di la ko bindal comme ni mu ñëwee ci yeneen i xadis sëg dund itam def ci li nga mën lépp ngir bala ngay dee li mawtik ngir sa ëllëg loolu ab xaaj la woon boo xam ne dañ ko fàtte woon na leeral ci waxi Abdullah bin Umar ci darsub démb bi bu ñëwee ci darsub tey bi nag abdullah bin omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na àqi ab julit nee na bépp ab julit àqam mooy bu fekkee am na dara lu mu bëgg a dénkaane bu mu fanaan ñaari gulit guddi lu dul ne bind na ko teg ko ci foo xam ne fu wóor la maa xaqu mriin muslimin lahu sheyun yuusi fii nee na àq julit boo xam ne dafa am lu mu bëgg a dénkaane bu génnee àddina ñu defal ko ko wala lu aju ci njabootam ñu saytul ko ko wala ay mbiri boppam yabiitu laylatayni nee na muy fanaan ñaari bis illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu nee na àqam daal mooy ba bu mu fanaan mukk ñaari bis ci bindul wasiya boobu bindul dénkaani boobu denc ko ci moom denc ko loolu mooy riwaayatu mus buxaari bi ci benn riwaay ci saxi muslim mu ne mu fanaan ñetti fan kon fële ñaari guddi la wax fii mu wax ñetti guddi yabitu salaas la yàlla abdullah ibnu omar daa di wax commentaire ci xadis bi mu ne ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي عبد الله بن عمر نانا جن قدرك ربط الجمن جنابي مدقى حديث بي كيرنت بي صلى الله عليه وسلم لدلنا سمن دين كان مجيك من لتحم واحد لولو ما من دين كان ليس سبيكو لفيق نيت كان يتي أدنى لم بندون أم نيتي سبيكو manoon nga bind ne masala amna baru 500000 cinq dem ba yag bor bi nek 100000 bo boo da ngaa war a soppi il faut nga soppi ko ndax doomu adam boy dund manam say mbir day ko wa man nga dem sax bor yi nga amone jeex am ñeneen ñi la amel bor nga bëgg bind diw yoral na ma diw yoral na ma man nga dem ba yag nga am njabot go xamni amuko won nga sama njabot sangam nan ma ci bayil xel nan ma ko yobul béréb sang nan ma ko defal nangam kon doon nit ki boy dund sa bi day soppeeku man ngaa dem ba yàgg am ay biens yu ëpp la nga amoon nga ne ah, sama bien sàngam nan ma ko defal nangam nan ma ko defal nangam moo wasiya du sax na am na mbir yoo xam ne mën naa sax ci wasiya waaye am na yoo xam ne du sax day soppeeku ndax doomu ad dund at doomu adama mooy bindoo noonu maanaam nekkul loo xam day sax ci benn ci benn terme ci benn loolu moo taxoon muy beesal ay wasiyaam moom nag nee na par guddi la koy yeesal yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi def ne képp koo am looy dénkaane daal bul fanaan ñaari guddi ca dénkaane wu ko ci benn riwaay bi bi ci des mën a ñetti guddi kon par ñetti guddi yi nekk mën ngaa renouveler sa dénkaane wala même bu fekkee ñetti guddi dana dana dana jege ci yow mën nga def par weer bu jot nga beesal say say dénkaane wala sax di nga ne par at mais am na ñoo xam ne mësuñoo bind sax wasiya loolu nag moo moo doy waar muy dénkaane wasiya nag mooy nit ki dénk ñi ñi nga xam ne ñoo koy wuti ñi koy mujj gi ñi koy mujj ginnaaw euh, ci mbir moo xam ne moo ko moom ne dan nan ma ci defal nangam wala loo xam ne moo ko yilif ne nan ma ci defal nangam nan ma ci defal nangam nan ci defal nangam loolu mooy wasiya moom nag ay xaaj la moom dénkaane am na ñetti xaaj am na dénkaane boo xam ne moom waajib la mënta ñàkk dañ ko war a def am boo xam ne dafa xaraam am boo xam ne dafa dagan ñetti façon yooyu moom la am bi nga xam ne waajib la farata la mooy nga dénkaane li war ci yow ci ay àq bor yi nga xam ne moom nga amee nit ñi loolu danga ko war a bind ndax boo ko deful man ngaa faatu say way doon nag lànk te loolu gis nañ ko bu bu set ñu gis ko dañ koy gis léegi la nga gis koo xam ne dafa yoroon ñu bari ay bor mu faatu ñoo ñëw di wax ñu ne leen ah, ah, est-ce que bindal ñun de gisun fu ko sun waajur bind masalan ndax bindal na la nga ne bindalu ma waaye ñoom ñoo ko bu leen neexee nag bu leen neexee bañ a nangu am ñoo dañuy lànk boobaa àq la yoo xam ne yaa ngi ko amee lay nit ba ñi ko waroon def lànk nañ ko ndax euh, donnet yi dañoo wute waaw kon loolu danga ko war a bind mu leer naa ñi nga xam ne bu ëllëgee kenn du ko mën a weddi ndax dana am preuve boo xam ne yow yaa bind waaw kon yooyu danga ko war a bind ba nga xam ne day leer naa ñi lépp loo xam ne rek àq la boo xam ne moom ci ci yow la aju loolu moom du ko war a bind ba mu leer nañ bi nga xam ne dafa xaraam nag mooy ngay dénkaane di jagleel lenn ci sa njaboot loo xam ne defaloo ko keneen ci ci tegul ci yam yemoo am nga daal ay bien nga ne lii moom nan ma ko joxal sama doom sàngam masala wala sama soxna sàngam te ñeneen ñi amuñ ko loolu dafa xaraam ndax kuy donn kenn war koo dénk moom sharia wala sun borom subhanahu wa taala séddale na sa alal boo faatoo ba noppi kenn ku nekk am na cër boo ci am wala bu demee bu mënta ñàkk na nekk loo xam lu day yama day da koy yemale te ñi nga xam ne gi ñëpp am maa nga jël kenn ki jox ko la neex ca des nga xañ leen wala nga jël kenn soxna yi jox ko lu la neex ca des nga xañ leen boobu bu xaraam la bi nga bi nga xam dafa maanaam nit ki bu ko deful itam kenn du ko ci daan yoon maanaam moom daal libre na ko neexee def bu ko bën ko neexee bañ ko def mooy nga dénkaane ci sa sulusu alal muy un sa alal nga dénkaane ci def lu ci lu baax boo faatoo loolu du par bu la neexee def bu la neexee bañ def waaye dagan na ci sa un tiers alal wala sax lu gën a tuuti un tiers waaye bu mu passé un parce que bu passé un tiers itam day xaram yonent bi nee na woon as sulusu wa sulusu kasir ba ko Saad ibn Abi Waqaas waxee ni dama bëgg a dénkaane ba nag bëggoon a dénkaane alal la jëpp mu ne ko déet loolu mënta nekk mu ne ko xaaj bi mu ne ko mënta nekk mu ne ko kon un tiers bi bu ñu ko xaajee ñetti yoon mu ne ko waaw loolu ca doonte sax loolu bëri na kon daal wasiya warut a passé un tiers u alal waaw mën na ko yées tax nag waaye wun mënu ko passé loolu nag nekkul farata nekkul waaye lu lu lu dagan la xañ na mënees naa wax itam ne manees na koo sopp mën na wax ne lu sopp la ba tey waaye moom ci cadre boobu la nekk nekkul loo xam ne dana cee forcé wala dara bu la neexee def bu la neexee bañ a def kon daal loolu mooy xeeti ndénkaane yi nga xam ne moo am waaye bu mu ci man di doon rek nit ki war na cee xir ci di ko def ci dundam di ko beesal ci ni nga xam ne noonu la bëgg ñu doxale ko ak taxawoo ko ginnaawam bu ko defee mu bind ko ba mu leer naññ def ci signature am def bu ko mënee utal ay seede mu utal ko bu ko defee mu nekk loo xam ne day bees ci waxtu wu nekk nit ñi mën a xam ay situation am na ñoo xam ne buñ faatoo seen situation day yomb lool ndaxte day fekk lépp bind nañ ko ba mu leer naññ loolu ci mu xel la ndaxte yow li nga mënal sa bopp bul defee ne keneen mënal na la ko arab yi dañ naan maa xokka maa xakka zaharak misla jildik misla zufrik kenn mën laa wokkal fuy xasan comme ni nga ko mën a sa bopp waaw nit ñi fi nit ñi ak lu la bëgg-bëgg am na foo xam ne nag la nga la nga ci mënal sa bopp moom ak lu la bëgg-bëgg lu la jege-jege mënalul la ko ci kon nag yow bi nga xam ne nag yaa xam sa bopp xam say mbir xam li nga bëgg defal ko sa bopp loolu mooy loolu bokk na ci njëriñ wasiya yàlla na yàlla may dégg ak topp wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain